rahmaani rahiim barkeb borom Tuuba fa man saa falyumin farra mawlidu nabi muharrama kamaluhu qaadal ula wal karama man laka mawlidu nabi yi safara mudaaratan qaalidatan lam tukfara نفح مولد النبي ربيعا الأول الذي أرى ينبوحا صرفه مولد النبي ربيعا الآخر الذي اغتمل مطبوحا أكرم مولد النبي جمادا فلا يزال ذاكرا همادا أعطى النبي بذارة جمادة قدت بها بفضلهم ماذا فاض بمولد النبي رجب فوضا به انقاض إليه العجب للمصطفى نور أذى شهبانا قاد له من ربي قربانا يقود مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفيضان وجه مولد النبي سوالا بما به قاد له نوالا مولد أحمد أدا سلقد إذا أطن في بردت وبهد نور مولد النبي سلعجه قابله درجة وهجة نور مولد النبي سلعجة قابله درجة وحجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلمك ما لم تكن تعلم وسلل الحق من الحق المبين لقد ما بان وما لذبين وذلل الحق من الحق المبين لقد ما بان وما لذا يبين القدران لم يكن درر نار الدنيا وقد ذن الباقي في غير الدنيا ملكني ما لم يبيع عني وقد لي بقاه بالمن كرامتي كتاب من رفعني بين الجنان مصطفى عني ما مماتا قنعان وبوذا ولذ وإذا قوتا بذا إلى ذوان عدو الموت نعنو ذكل بفوت لم تنهني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء ذودي موت الذين كبدوني بذلوا من موت نفسي ما نواني جدل ترسي عن الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله ترافع بي المرضية لذك بكوني بالأمين في وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جان التامين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جان التامين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جان التامين لي الله قرآن جبريل محمد محمد ينفردوا لو خطاب عامدا وينجدوا على الذي في الجنان أقضدوا هب لي كتابك وضغما يقلدوا بشري لي يا أكرما أوحد إن كتابا جابه محمد صلى عليه بزلام زمد لنا به قاد حدا ورضدوا بي على رب الورى نحتمد نرد نبى لغيرنا به محمد مضى أنا وقد نفاه ذمد جميل التسليم يدوم المعداد بي على نبي أمين يمد بركة عظيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحد رمنا ذلا من بذنن يجدد لقائد هو المتاه الأمجد يا الله يا رب الورى يا ضمد يا من بيمتدى الكرام الحبد القديم المدود من يمنيات الكرام المددود هو الإمام والسفيع الأجود من ربنا به يدوم الرقد لنا وين ولذوانا نكد درجة المختار ليلة تشهد ونور ساتع ليلة يعمد من ربنا به يدوم الأفيد لنا وين ولذوانا الكمد حبيبنا المختار بان ضدد وما حوى في القر إذا يجد محمد وصجاه سند هو الجميل وذقي ضيب محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورذون منجد دين سوى إسلام حين يحمد عند الإله وبه نجدد دين سوى إسلام حين يحمد عند الإله وبه نجدد بسم الله الرحمن الرحيم بركة برم توبا يومي ديوت ngërëmal bur yàlla ndax gisuloo seex bamba jàmbaar ji tax ñu nekk xaraar ki woote woon màggal gi fii Tuuba ba ñépp di fëx jàmbaari maam Cheikh Rafal sangu borom daaru moo kennaloon yàlla gëm yonen ba mooy kawayoon qalbi lahoo fii xitaabil jismi takraaru sellam nga semmal na seelub noon yësël sëli ngir suul ko mësta tawatte mësta bakkaaru budul woon moom ku gëm buur yàlla doo ko weddal mbaa doo ko gëm moo ni woon yàlla di qaxaar tawhiid ju jar wax dëggantaan bàmba rekk a ko am ngir luñ ko def weddiwul te woon na xamaaru jëm nañ ko ay rabbu gas nañ suul ko dóor ko fetal xiifal ko ay fani teewul di tubaab yi jël ko dem ak moom jëm Gabon ni buy egg faatoo fa ànd ak noon ba makkaaru sëñ Bamba jël xalimaam di kañ boroom ba ko moom tiitul raful jublu rek sangam ba muxtaaru allahu akbaru akbaru bambaay waaja waaju ko bañ bañ yàlla bañ Mustafa bañ gaay abraaru aayoona yaa bu soo ñàkkoo xorom raagaaloo te bakk woon ndam woo yaay nga nga abraaru yaa mata mata gëm yow Bamba yaa mata am waaju la am am na ngeen ji ndam ci la siraaru yaa mata xam mata gëm yow Bamba yaa mata am waaju la am am na ngeen ji ndam ci la dogon Bamba lay lu réew mi di jar xanaa tus dogon daam wolof ñàkk cër dogon bamba lay laaj lu réew mi di jar xanaa tus dogon daam wolofu ñàkk cër dogon bamba kon nu féeteeg togal di par farañse di raf leeli cër dogon bamba kon tey nu réerek te kon noo ngi fóoneek di kar takk di njar dogon bamba aadaak bi daa fi jóg ndemoo daj ji póotam folet seeni car dogon bamba wuurak dameel ak barak dañuy des ci réew mi di yeew ak di cor sëriñ bee duxal raaga daa xew calaa ba ñuy taaji ndam san di fot takk di njar sëriñ bee waral tey balambay taxaw di not dak di kabbar fasek yooya cër tanoor saay mu seexal sëriñ Aliyun te seexal fa cargaan sëriñ Baabakar sëriñ bee waral siin fanaaney durus fakar kumbandoo feen di boolooy sikar mu def doomi wuur yi murit ñépp gëm ba maam Abdoulaye xaar di lim booy sagar mbërum yàlla maa ngi te koy wayal donoy Moustapha ngi murid yan ko dar sëriñ Bamba sempi sampab togal te sampab jalooreem ci réew mi du far firil nañ ko raayaw ngëm léppi ndam te muy firfiri wi sëriñ bee di mbër mbërum yàlla maa ngi dama koy wayal donoy Mustafa ngi murid yan ko dar su buur yàlla ne waaw yonentam ni waaw ku fi bañ ni waawaaw mbiram dal di ñaaw sëriñ Bamba maa soowul ak senn cam faral ngabbu sak nos te jébbal ko gaaw atum wam sa ség léegi gis nañ di gàccee li démbam renam dàq daaw atum wam sa seeg léegi gis nañ tayam di gàccee li démbam renam dàq daaw ña daa takki njàngal te koy jéema lor ndaxam seeni jeexit saxul lépp saaw ña sampooni koote ka daa nas lu bon amuñ ndam te laaluñ lañuy jéema laaw dañoo mbëkk ciw doj ba seen bopp toj ñu yoñ joxle seen mbir wasaani pitaaw bañam yépp diim nañ mu des fii bérëx mbiram jëm kanam seeni mbir jëm gannaaw mbëru yàlla maa ngi damaa koy wayal te duma deeti fendal ba bis bañ ma ngaaw mbëru yàlla maa ngi damaa koy wayal te duma deeti fendal ba bis bañ ma ŋaaw donoy Mustafa ngi tadib xaadimam te moo duy bagaanuk ku fi ñëw di baaw ña doon baaw ba waameem walee kiilu nañ bu gantu waameem ba seen mbir ñaaw bu réew mépp nangul ko ku ma yam te jiital ko kon leeg nu mel ni njanaaw bu réew mépp maaseen nangul ko ko mayam te jiital ko kon leeg nu mel ni njanaaw sama mbër du bu tire nañ koy fetal ak i nak yu nu yafal bëgg bakkanam te taxul bid wa dem taxuloon koowe dam ci di way yoon nenam pas-pasam dafa kàbbar ci ndox bato nasaraan sëfëx ñu ni tey day mëbëx bile bis mooy bisam lambaraan ak gabon ñoom tukki bee tax ñu ñoŋ ba mu delsee la toŋ ñane woon ci ko wetam Madu Bamba di mbër jàpp nasaraan si dër te génneewul góor lile rekk doy na Madu Bamba di mbër jàpp nasiraan si tër te génniwul gobar li rekk doy na li mu way yoon nenam gisaguñ cim kemam te ësël dootu am ku ko dab ci waxam ku ko boolek mbërëm bu nu peesee nga xam ni ka daani bañam bu ka toogoon këram ku ko diingat torox fii ku fi lal der ci ndox bu ca tàbbee suruq ñu dëjël ko dëjëm ba fi diine yi wañax dëkk bëx bëx di bax ñafi woon gumba tëx ko ne dàq ko ba ruqam ba mu neexee ñu ñëw bëgg ko féete kaw ku ne naa maa fi raw di fa gaatu ma ni noppee fi war ndax la sa mbër wax ca ndar mbind maa ngee du far ku fa dem teg bëtam fu fi lëg maj ca tol fii coyo def abu dogal fu fi jullit di julli war koo gërëm Madu Bamba di mbër jàpp nasran si tër te génneewul góor li rekk doy na ndam Madu Bamba di mbër jàpp nasran si tër te génneewul góor li rekk doy na mani 18 safar moom mi ñu teggil naqar kon nanu waajal ko ngir ku ca feeñ am ngërëm mani 18 safar moom mi ñu teggil naqar kon nanu dox jëm ca ngir ku ca feeñ am ngërëm yàgga baax la ilaha illallah la ilaha illa la lampu faal la ilaa faal illa lampu faal la doon wër wër ku baax ndeke boo bayawa lampu faal